Je m'appelle euh, Philippe Matter, je suis le directeur Merci exécutif venu de Ecotra. ici aujourd'hui. Euh, juste pour dire, Ecotra est venu ici pour son quatrième année consécutivement pour aider euh, la ville de Touba et aussi le grand événement de la Magal qui va venir bientôt. Et comme d'habitude, on est très heureuse d'aider la ville de Touba et toutes ses populations. On est venu ici avec notre matériau, notre personnel et aussi notre capability de faire le maximum de travail pour aider le maximum de soucis qui existent à l'instant. Mais on espère, avec euh, tout le monde ensemble, on va arriver pour faire notre travail comme d'habitude, dans une bonne manière, et d'arriver que le Magal peut démarrer dans un bon, euh, bon euh, temps. So, je veux juste dire merci encore et je vais laisser la parole à notre euh, directeur, M. Alpha pour expliquer un peu plus le travail. Merci. Euh, mboolem maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di sant di leen indil nuyoo suñu kilifa muy Abdoulaye Sylla muy président du groupe Easy Holding di administrateur général bu entreprise Ecotra Ecotra nekk entreprise boo xamante ne bii ci bâtiment ak travaux publics lay liggéey bëgg a ci entreprise yi ñu gën a ràññee ci Sénégal gën ko ràññee ci Afrique loolu moo waral lépp lu mu mënoon mu def ko pour am matériel bi bi war am personnel bi war li mu jënd ci ay machine ëpp na téeméeri machine li mu yor ci ay nit yuy liggéey ak moom ëpp nañ juróom benn téeméeri nit loolu lépp pour tabax Sénégal moo tax loolu moo ñu boole ak pôle urbain de Diamniadio bi nga xam ne assainissement bi ak VRD ñoo ko yore moo ñu boole ak Ageroute ba xamante ne tali yu bëri ci réew mi ñun ñoo ko yore boole ñu ak SAED ba tax aménagement yu bëri ci dëkk bi ñun ñoo ko yore boole ñu ak communes yi bu ci mel ni commune de Thiadiaye ñu yore taleem yi donc loolu lépp pour tabax Sénégal loolu Abdoulaye ak si la gëm si loolu la ñu nàmpatal si loolu la taxaw taxawee waaye li muy liggéey lépp li ko ci gën a ñor li ko ci gën a ñor moom Abdoulaye Sylla mooy Touba li ko gën a ñor mooy sëñ Touba loolu moo tax at mu jot ren di ñenteeli at ñu ñëw fi mun na nañu bàyyi lépp lu ñuy liggéey lu ñu am ci matériel ak lu ñu am ci ah nit nañ ko indi Touba taxaw ci liggéeyu Touba fexe ba Touba lu fi nekk te waru fi ne ci ñàkk set ci ndox muy taa ci tali yu baaxul nañu ko régler ba balaa bésu màggal gi lépp nekk ci yoon loolu la ñu sas di yëgal sëñ bi naka moom Ablaye Sylla léppam moom la mun Mountakha léppam lépp Ablaye Sylla Mountakha moom kese la sëñ Touba kese la li mu ñu sas mooy lu ñu man ak lu ñu mënoon nañu ko def ba Touba màggal gi bu yegsi na fekk lépp normal li ñu amoon ci matériel yëpp indi na ko fi li mu amoon ci personnel yëpp indi na ko fi gradeur yaa ngi fi bulldozer yaa ngi fi pelle yaa ngi fi camion yaa ngi fi nit ñi leen di doxal ñëpp ngi fi moto pompe jënd nañu fi ay pompe yu bëri yoo xamante ne bu ci nekk war na toll ci cent vingt mètres cube heure ñu ngi nii ci seen gannaaw lépp pour jële fi ndox mi defaraat yoon yi euh, def liggéey bi nga xamante ne moo nekk ci biir université bu bees bi mu ŋànk ŋànk zone bi nga xamante ne mooy zone jumaa ji ak poste de santé bi danañ ko defaraat bu mu mel na ko sëñ bi bëggee incha allah dëkk yi wër Touba yoon yëpp fa jëm yëpp danañ ci taxaw ba dem bi ak dikk bi du am benn gàllankoor ci biir màggal gi fu ndox taa ci dëkk bi dana nekk suñu yitte fu tali dagg ci dëkk bi dana nekk suñu yitte loolu lépp dinañ ci taxaw bu sobee suñu borom di ñaan sëñ bi mu dolli ñu ñaanal ba lii ñu samp ngir bëggal ko lu ko lu lu lu dëppoo ak bëgg-bëggam bi mu bëgg a defal sëñ tubaa yàlla jàppale ñu ba ñu mën ko defar ni mu ko bëggee yàlla na yàlla jàppale ñu di yóbbante sëñ Cheikh na ko Ablaye Sylla jëlaat na boppam dénk ko sëñ Muntaxa jëlaat na boppam dénk ko sëñ tubaa di ñaan mu ñaanal ko lépp lu mu def xeeb na ko lépp lu mu def ci Touba xeeb na ko yàlla na ko yàlla jàppale Sëñ Touba jàppale ko si Sëñ Mountakha jàppale ko ba lii mu ma ci Touba yàlla mën loo ko ko ba mu yeggalu ko ndax si mooy fàttali rek ne eh, Abdoulaye la yemul ci lii ñeenteeli at ngi nii mu di ko def fi ñu toll li ñuy wax xablu Sëñ Fallu mu ngi koy yeesalaat li ñuy wax xablu eh, sëñ eh, Cheikh Seydi Mokhtar mu ngi koy yeesalaat lépp ci bëgg sëñ Tuba ci bëgg dëkk bi ci bëgg xe euh, giru murit yàlla na yàlla fay ko loolu muy def loolu la ñu sant ñu ngi ciy góorgóorlu yàlla nañ ci yàlla jàppale di leen gërëm di leen sant ngeen baal ñu àq. asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. dégloo leen. yéen mbokk yi fi daje yëpp. yéen mbokk yi fi daje yëpp. ci kàddug sëriñ alfa Samb mi. ci kàddug sëriñ Alpha Samb mi. ma dégg waxam ji rafet na lool. ma na lool. matal na sëkk. matale na sëkk. ci laa leen di delloo nuyoo Cheikh Mountakha. ci laa leen di delloo nuyoo Serigne Mountakha. ñu ngi leen di nuyu yéen ñi fi nekk ñëpp. ñi nekk ñëpp. di ñaan nuyoo boobu mi ngi ko ànd ak Serigne Bassirou moom di ñaan nuyoo boobu mi ngi ko ànd ak Serigne Bassirou moom Serigne Abdou Khadir. mi ñuy taxawaloo màggal gi. mi ñuy taxawaloo màggal gi. sëriñ bi mi ngi leen di yóbbante nuyoo boobu. sëriñ bi mi ngi leen di yóbbante nuyoo boobu. ci seen kilifa gi ngeen jógee muy Ablaye Sylla. ci seen kilifa gi ngeen bàyyi ko muy Ablaye Sylla. sëriñ bi mi ngi koy sant di ko gërëm. sëriñ bi mi ngi koy sant di ko gërëm. di ko xamal ne mi ngi koy nangul lim ko wax lépp di ko ko jàppal. di ko xamal ne mi ngi koy nangul lim ko wax lépp di ko jàppal. mooy doon waajuram. mooy doon waajuram. doon ab sëriñam. doon ab sëriñam. dox diggam ak Serigne Touba. dox diggam ak Serigne Touba. di seereel liggéeyam bi sëriñ Touba. di seereel liggéeyam bii Serigne Touba. liggéey bi nag li nga wax Alpha. liggéey bi nag li nga wax alfa ñeenti at yi ngeen fi ñëw yëpp. ñeenti at yi ngeen fi ñëw yëpp. man ngeen ko doon àndal. man ngeen ko doon àndal. ñu dénk ma. ñu dénk ma. ma jiite mbooloo mi nga xam ne. ma jiite mbooloo mi nga xam ne. dañuy setal dëkk bi. dañuy setal dëkk bi. ak di ko defar. ak di ko defar. di ko waaja màggalug Serigne Touba gi. di ko waajale màggalug Serigne Touba gi. ñeenti at yooyu nga wax. ñeenti at yooyu nga wax. lépp noo koy ànd. lépp noo koy ànd. bés bi fi délégation ECOTRA njëkkee ñëw. bés bi fi délégation ECOTRA njëkkee ñëw. maa ngi leen recevoir woon ci kër góor gi Mandiaye Jong. maa ngi leen recevoir woon ci kër góor gi Mandiaye Jong. jëloon engagement yëpp. jëloon engagement yëpp. comme ni ngeen ko waxe comme nii ngeen ko waxee. ngeen defee noonu. ngeen defee ko noonu. andi matériel bépp. andi matériel bépp. li ñu bëggoon a def lépp. li ñu bëggoon a def lépp. ngeen jàppale ñu. ngeen jàppale ñu. ba mu yombo ba mu yomb. te fekk na booba. te fekk na booba. ñu tàmbalee am tuuti jaaxle. am tuuti. jaaxle jaaxle. ndax màggal gi. ndax màggal gi. tàmbalee dugg ci nawet bi. tàmbalee dugg ci nawet bi. ñu daal di xam ne kon. ñu daal di xam ne kon. at ya ko njëkk. at ya ko dañ doon setal rek. dañ doon seetal rek. léegi nag dañuy boole setal. léegi nag dañuy boole setal. ak tàng ndox. ak tàng ndox. ak sëkk. ak sëkk. kon mu ñetti liggéey yu bokkul. kon mu ñetti liggéey yu bokkul. waaye liggéey bi ngeen ñëwee. waaye liggéey yooyu yëpp bi ngeen ñëwee. jàpp jàppale ngeen nu ci. jàppale ngeen nu ci. ba am ci résultat bu doy. ba ñu am ci résultat bu rëy. bu rafet. bu rafet. te loolu. te loolu. pasteefu Ablaye Sylla la. pasteefu Ablaye Sylla la. ak yitteem. ak yitteem. ndax doomi dëkk bi la. ndax doomi dëkk bi la. taalibeeb Serigne Touba la. taalibeeb Serigne Touba la. te booba it lañ ma waxoon yóbbanteem. te booba it lañ ma waxoon yóbbanteem. mu ne fas na yéene feeg mi ngi fi. mu ne fas na yéene feeg mi ngi fi. Ecotra di dox. Ecotra di dox. ñuy jàpp ci màggal gi. ñuy jàpp ci màggal gi. kon dañ koy ñaanal mu yàgg fi. kon dañ koy ñaanal mu yàgg fi. ak personnel bi yëpp. ak personnel bi yëpp. ak ak ak jëmmi entreprise bi ci boppam. ak jëmmi entreprise bi ci boppam. yàlla defal leen barke. yàlla defal leen barke. loolu tax na nam ko waxe woon loolu tax na nam ko waxe woon at mu nekk maa ngi koy gis at mu nekk maa ngi koy gis ba ren rek ba ren rek yeex na maa yóbbante ci moom yeex na maa yóbbante ci moom di ko wax liggéey bi di ko wax liggéey bi waaye kama yóbbante woon waaye kama yóbbante woon loolu la ko tontu loolu la ko tontu ne ko la ma jaayante woon maa nga ca ne ko la ma jaayante woon maa nga ca liggéey bi luñ ci daan def liggéey bi luñ ci daan def day yokku day yokku waaye du wàññi waaye du wàññi ko gis naa ne yokku na itam. gis naa ne yokku na itam. biñ ñëwee sama xel dal na lool. biñ ñëwee sama xel dal na lool. waaye ñuy gën a sant bu baax. waaye ñuy gën a sant bu baax. ndax liggéey sëriñ Touba moo yaatu. ndax liggéey sëriñ Touba moo yaatu. ndax Touba ci kanam. ndax Touba ca kanam. ñu ngi woon ci mbedd yi. ñi ngi woon ci mbedd yi. di wàññi ndox mi. di wàññi ndox mi. di ko sëkk. di ko sëkk. di ko defar. di ko defar. waaye taalibe yi. waaye taalibe yi. ñi ngay àndoon ñoom. ñi ngay àndoon ak ñoom. lu ñu am ñu doon ko lu ñu am ñu doon ko indi. waaye nu itam bi nu ñëwee. waaye nu itam bi nu ñëwee. taalibe yi ànd nañoo ak nun taalibe yi ànd nañoo ak nun ba sun xel dal. ba sun xel dal. waaye bi ngeen ñëwee. waaye bi ngeen ñëwee. sama xel gën naa dal. sama xel gën naa dal. sama njort gën naa rafet. sama njort gën naa rafet. ci ne dinañ def li sëñ bi bëgg. ci ne dinañ def li sëñ bi bëgg. te buñ ko defee rek. te buñ ko defee rek. nu itam li nu bëgg dinañ yomb. nu itam li nu bëgg dinañ yomb. kon ñu ngi leen tàllal loxo. kon noo ngi leen di tàllal loxo. di leen dalal di leen dalal jàmm. di fas yéene ànd ak yéen liggéey bi. di fas yéene ànd ak yéen liggéey bi. yéen wàcc ngeen. yéen wàcc ngeen. li ci des nag nun la. li ci des nag ci nun la. nun ngeen fekk si. nun ngeen fekk si. di sunuy gan. di gan. di ñu jàppale. di ñu jàppale. ñun itam danañu fexe ba. ñun itam danañu fexe ba. lépp lu yembal seenub liggéey. lépp lu yembal seenub liggéey. danañu ko def danañu ko def. ak fu ñu ko mën a jëlee ak fu ñu ko a jëlee ndax liggéey boobu rek moo ñu ñor ndax liggéey boobu rek moo ñu ñor kon sant kon noo ngi leen sant yéen ñi ñëw yéen ñi ñëw ak kilifa ya ngeen fa bàyyi ak kilifa ya ngeen fa bàyyi ak ak Ablaye ci boppam di jot li cantuk sëriñ bi jot li cantuk sëriñ bi di leen ñaanalaat rek di leen ñaanalaat rek li ma waxoon léegi li ma waxoon léegi yàlla may leen fan yu gudd yàlla may leen fan yu gudd may leen wér may leen wér may leen jàmm may leen jàmm zahir ak ci baatin jërë ngeen jëf tàllal leen tey wax amin te nu ñaanal ko moom itam yàlla yàgg ko fi lool may ko ndam ci li ko koy kilifaam dee barke sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf